postiers yi ñu ngi jànkuwanteel ak ay problème ci ci seeni peyoor naam bu njëkk ba balaa weer bi di dee dinañu doon jot suñu salaire mais depuis un certain temps dañuy jéggi weer bi ba dal ca beneen weer su ko defee direction générale gaawantu parce que am na ay moyens virer les salaires parce que nous disposons d'un centre de chèques postaux virer les salaires beaucoup d'effets, defee liggéeykat yi continuer de daw ginnaaw salaire que les ils sont à l'intérieur du pays Ils ont ba le 15 du mois suivant pour mun a salaire parfois di nga gis koo xam des dafay am ku xam Dakar pour ko mu fayal ko ko pour yónnee ko ko envoi loolu mënul continuer et la nga xam ne moom difficultés difficulté de trésorerie yi nga di tension de trésorerie Le wax nañu gouvernement a am responsabilité parce que les gens na lu mu ñu joxuñu ko nga nak mo ci ci parce que bi mu xam waaye daf ci boole fuqale bu doy bu jéggi dayoo boo xam ni tey jii nii dafa dafa dafa dafa dafa dafa gën a gën a gën a lottal xam nga kër gi waaye aussi mu ànd ak benn pares boo xam ne ñëpp xam nañ ko ba mu pare euh, won liggéeykat yi ne du kii kat moom mooy génnee post ci guuta gi waaye da koy gën a renforcer.